jaajëfal leen ci bi ngeen di ànd ak ñun mbokku internet yu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. baadoolo du jub gàcce du ci yegg da ciy sangu mën internet yu 5 TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaîne bi de. Pape Alé Niang daal dinay àddu kon ginnaaw gis-gis bi nga xam ne am na ko file ci Sénégal lu jëm ci wàllu dal bi ak itamit ci Afrique sowu jant mu niin jamono ji nga xam ne nag ñoo ngi dund lu metti lu nu mel jëm ci wàllu gouvernance waaye itam jëm ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama rawatina nag mu ni boroom xam-xam bi lee di may Meissa Babou enseignant chercheur foofee ca FASEG ca université bu Cheikh Anta bu Ndakaaru muy wax jëm rek ci question yu am solo yi nga xam ni kon yëkkati na ko ginnaaw rek li nga xam ni moo gën a soxal askan wile ak lu jëm ci wàllu espace politique bi mu jàpp ni nag moom guerre bu doy waar la waa itam rek xeex bu salte nag la gis ci mbir mi. ginnaaw opposant politique bi di Ousmane Sonko ñu ñaawlu kon nag jëm rek ci jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko waaye leneen itam bokk na ci parti bi nga xam ni kon tas nañ ko loolee mu nekk ni lu doy waar la waaye itam avantage la rek jëm ci ñi nga xam ni ñoom jàpp nañu kon loolee mooy li gën ci ñoom leneen yi itam mooy jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko boobee ba tey kenn waxu ci dara dem ba rek jëm ci wàllu éducation ak itam ci soqali eh, ci askan wile moom nag maître Babou ginnaaw kon mu ni université yi nga xam ni tëj nañ ko ndongo yi kon jànguñu demuñu dikkuñu mu ni loolu itam lajji laj la rek jëm ci wàllu éducation bi te dañ ko wala xoolaat injustice sociale ak politique bi nga xam ni itam nekk na ci réew mi te ndaw ñi itam di ko ñaawlu ca noonee ñu leen jàpp tëj nag mu metti loolu ñeneen ña wutali rek géej gi ñoom kenn gisu leen kenn déggu leen mu ni kon yile dogal ak itam yile rek décision ñu jël war nañ ko mën a xoolaat bu baax a baax xoolaat suñu réew mi itam xoolaat ko waxtaani ko bu baax a baax jëm ci wàllu démocratie la muy jeexalee moom may Meissa Babou la muy wax rek jëm kon ci bëgg-bëgg bi nga xam ne am na ko ci réew mi waaye itam situation bu doy waar bi nga xam ni mën koy daal di dundu askan wilee mu ni kon la ñu war a def mooy waxtaane réew mi waaye itam war a def mooy seggat